kon ala fadil asim kum jox nga neel dee fi lay am sëriñ Falilu mooy fadul asim turam wa doy na xarnu bi sëñ Fallu Mbàkke bay Musaa mooy doomi Samsun wa xamar Mbàkke ngu soobe ko jar moo namp yaari weeni gor mooy Bamba tey ci xarnu bi sëddiiti baaram day royaat leeru cosaan nga day royaat nday jaadi xayru mushanaat moo doonu booti xarnu bi sëriñ Falilu Mbàkke bay Musaa Kane mooy noobal islam fi nun mboolem sërif yi moo ci gën danay Hussein wala san ma ay xaada moom ci xarnu bi ma wax la lëf ci ay jikkoom leet ba ànd ak sagoom niru na bàyyi ba ma na doom ëmb na ci at sax xarnu bi Serigne Fallou Baye Moussa Kane dem na ba màkkam jullikaay añ na siyaare ngën ji bàyyi te indiwul alal di jaay na amul ci xarnu bi taali fi bàyye may waaye moo doon mu duusi xam-xamam moo naan ci jégi ikamam sirom ba doy na xarnu bi cay Serigne Fallou Baye Moussa Kane yàlla na am na muy mébét ci nun moom la ñu mébét ci moom te yal na ami sët yu gën a gaaw ba xar mu béy Sëriñ Fallilu laajan lu la neex la wallaay ku Bamba di bàyyam lu ko neex la wallaay ku àndat ci lu la neex laaj bal falloo jara àndal bu leen njaay wallaay ko ànd ak kenu lu la neex la wallaay fallilu mbàkke jara àndal bu leen njaay